mbokk yi arbitre bi sifflé na baa ngi noonu ci diggi géew bi Caatu Lamine Gueye moo ñëwoon ginnaaw Reug Reug bu bees sifflé moom la ñu jàkkaar lool Reug Reug bu rëbës ak Caatu Lamine Gueye moo ngi lay waatoo moo ñuul ngem moo ngemu lu ñuul li ah tooñ na ko léegi daw na eh, jàppante ah sànni na ko waaye Caatu Lamine Gueye lu muy def nii Caatu Lamine Gueye bal Lamine Gueye la ci. rëg rëg sànni na léegi. Caatu Lamine Gueye rëg rëg bu bees. xeexu mbedd la ñuy xeex. ñi ngi xeex ñi ngi xeex daw nañu jàppante. Caatu Lamine Gueye rëg rëg bu bees. ñi ngi téyante. Caatu Lamine Gueye moo moo ngeemul xonk li. rëg rëg bu bees moo ngeem moo ngeemul lu ñuul li teg ci mosu xonk bi Caatu Lamine Gueye bëgg na jàpp léegi mu bañ. téyante. Caatu Lamine Gueye. seddoo nañu jàppante bi ku ne téye ñaari géeñoo. fa mu yowut sax daa sori génne sa bopp. ko ci sa épaule morom. Caatu ay da Njaay ngi way moo nga Adja Ndiku. Caatu Lamine Gueye rëg-rëg bu bees. ngi téyante. est-ce bu yàgg daa am. wala boobu téye na ba mu dëgër waaye dara amagul. Eh, daan na ko rëgg daan na caatu Lamine Gueye yàgg na da koo biij plaqué ko mu jaaxaan. rëgg bu bees daan na ko.